وسابق الخلق والحاجات جملة كرم وزبك يا كريم يتاوى وأمم الخلق يا مقتاع يا زنادي كرم وزبك يا كريم يتاوى mbokk yi tey jii fi teew yéen ñu ngi leen di nuyu di teg nuyoo bi ci suñu rakk Mouhamadou Amine Gueye mu jaarale ni ko ci suñu baay bi tedd bi Baye Mouhamadou Fadal Gueye ak rakkam baay Mouhamadou Makhtar Gueye ak suñu baay Thiam Mbare xam ne teew na fi xam naa ne daa mel ni guddi na ba noppi du jar ñuy téye lenn ci temps bi waaye ñi fi teew xamal leen li waral sang yu tedd yi ñëw fii muy xëy yenn fi xam ko yóbbuwaale ko solo ci mbir mi euh, fii place la boo xam ne dañu ko bëgg a ubbi def ko daaray alquran yoo xam ne dañ koy jàngal doomi jullit yi seen diine ñu yar leen tarbiye leen jubbanti leen loola mooy sabab bi waral nit ñi dajee fi ñu bàyyi xel wala sax tuddee nañ ko ba noppi sang bu tedd ba maam Abdou Salaam guddee loolu mooy li fi dajale mbooloo bi te alquran dafa waxoon ne wa aatul buyuuta min abwaabiha waaye dafa mel ni bude dee ci biir classe bi lal tayee nañ ko alquran ba noppi bude dee jëmmi jotaay bi lola mom lañ bëgg lay lay taayalee li nga xam ne mooy alquran ci màndarga buy tektale ne daara ji nim bëgg mu doxé ni la lola nak kenn ci ño xam ne Amin moko jangal ba am njàngam ràññee ko lool jamono jàpp ko mu tënku mu jëloon ko joxoon ni ñu ko ñu téyeel ko kooka la ñu indi woon ngir mu jàng alquran moom ak beneen dongo boo xam ne ñoo jóge woon waaye li ma gisee temps bi xale ko jox mu jàng rek su ñu doy looloo ndax sang yi teg ñu fi taxaw ñu fi toog te amaana ñu war a jël kàddu euh, képp koo xam ne waroon nañu tudd ko rek. ñu xam na temps moo tax mun ñu koo tudd waaye seen teewaay yëpp seen déglu rafetlu na ko lool li ñu daal daanaka mën naa mooy kàddu yi nga xam ne moom ñu loolu ñu fi amoon su ko defee alsan ndaw ñëwal jàng alquran ay aaya yu gàtt rek su ko defee ñu tegtaloo ko ci barab bi te ñaan ci yàlla ci alquran bi ñu fi wàccee ak ji ñu fi jàng yëpp place bi bu ëllëgee mun naa fee noona في القرآن إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طبعا nascer para é o Olha. mu ngi nii kii dañoo ngeen sa géej gi Mahamadou Fadil Gueye mooy xalifa si Abdou Salaam kii rakkam la mooy caatu sëñ mooy Mahamadou Mokhtar loolu moom njaboot googu daal ñoo fi teew ba dañoo jox sëñ Mokhtar mii nag mu def waxtaan jox la nga nuyu ak mbooloo mi rek ah, bi nga kon ñu jox nga jàng ñu jox Cheikh Samb incha allah rabi jël kàddu gi ñu pare ñu jox suñu waxtaan incha allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عمل منكم عمل عمل منكم موسى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوسوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد صدق الله العظيم Jangan kau gi jangan kau ko si Ahmed Tidiane البني تاع محمد المختار ودا الوطن ان شاء الله الحمد لله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 أرسل رحمة للعالمين القائل في حديث شريف مشهور خيركم من تعلم القرآن وعلمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه النجوم الهاتين ومن اكتفى بآثارهم إلى يوم الدين آه، خمنا لي كدوك بيتنا ما وهي تبارك الله لمسرين بني ليال ننا أي دوم غلانيو سني أي كيلفة دبيدان جاندان لان ديغل سو مني دفال سو منو جيمل كون تي كادرو جيم رك ñuy yëkkati kàddu gi tabarakallahu di jiital ci nuyoo bi sa jëmm ju tedd ji di ñaan yàlla borom bi subhanahu wa taala ni mu digee ci jataay yu mel nii nga xam ni bokk na ci jataay yi gën a tedd ci àdduna ak ci jullit yàlla nañ ko yàlla boole suñu jataay bii toogaay bu ñu fi toog lu mu yàgg-yàgg wala bu gàtt-gàtt diir boobu rek yàlla na ko yàlla jël soppi ko yiw ak yërmande tasaar ko ci àdduna yëpp ndax alquran mën na lu ëpp loolu ba suñu mbokk mi nga xam ne tabarakallahu euh, yàlla ku mën affaire la moom rek moo mën couleur man bi ma koy jëkk xam di ko dégg yàgg na ndax jaxasoo ak di dox léeg-léeg ci biir réew mi di dajee ak ku nekk waaye Mouhamadul Bachir Cissé yàlla def muy seen njaboot di seen jarbaat moom la yàlla dogal benn mbokk indi ko ci man jógee ko ak moom ca xadar bu tedd ba kër maam alxaaji Abdoulaye Niass radiyallahu anhu ñu war a ànd ñoom ñaar pour ziyaare ji Seydina Cheikh Ahmed Tijani radiyallahu anhu muy Serigne Baye Dame Niass mu ni ma man bii yoon suma benn wóolare bu ñu wax Abdoul Aziz Alé Ndiaye benn bi nga xam bu Tiwaawan turnu al amin moo ko may biyee waaye mu ni ma man damay dem bi ma tàggoo suma benn mbokk moom mooy fayal boppam ndax am na fu mu jaar pour dem ziyaare Seydina Cheikh mu ni waaye ñun ñaar ñooy ànd xaaral ma présenté la ko nii laa xamee Cheikh Mouhamadou Bachir ñu présenté ma ko man ak moom ak Alxaaji Baye Dam ñu bàyyi ko fii Ndakaaru ànd ak suñu kuréel ak Ansaar ñu dem ziyaari Seydina Cheikh radiyallahu anhu sama turandoo turandoo mi nga xam ni sama turandoo daf ko xool ni lawlaa kan maa zaharat lana asmauhu ramzan li kulli xaqiqatin wa kiyaani ñu ànd ziyaara ci ñu demee ma nuyante ak Cheikh Mahamadou Bachir ñu ànd guddi yu neex ak bëccëg yu neex ci diggante taalibe ak moroomu taalibe yàlla bi ñu dimbali ba loola jeex ñu ñëw senegal ma xëy rek nekk ci bureau pèlerinage Mahamadou Bachir ginnaaw lañ leen jokkoo di neen ci yëgante ak ci soppante ngir lu bokk waxee rek ni ma damañ dem damay war a dem ziyaara ji ku tedd ki sallallahu alayhi wa sallam mën a joxe waale samay manasikul xaj yàlla def bis boobu nag foofu xat lool lu mat juróomi téeméer nit nekk fa te kenn mënul dugg gendarme yi taxaw ci bunt bi te bis boobu daanaka li moom ci jeexital bi mën ngaa yor sax sa alal yor sa wér gu yaram yor lépp te doo dem nag parce que aj nag bi passé ren ñu ñu nekk ci secteur bi xam nañ nu la demee yàlla def foofu tamit mu ñëw ni ma samay kayit yi lépp ngi nii ma nekk tam ah man ko nañ defal nañ defal fees ñu jàpp ci di jéem di jéem ci kàttanu yàlla ak machia suñu borom ak iradatu rabbaniya yàlla nga xam moom rek mooy mottali tey boobu fekk na yàlla xam naa boole na ko ci wa assil fi naas bil hajji yatuuka rijalan wa ala kulli damirin yatuuna min yatina min kulli fajjin amiqin li yashhadu manafia lahum ma ñëw nekkati ci nekkati ci ci toobale suñu borom ndax jàmm mënul dara ñun ñëpp lontu nañu ci euh, coobare suñu borom yàlla rek mooy motali ñu àndal su man ak moom wutali màkk muy aju vingt deux mille vingt bii arafatu ajuma bi ñoo fa bokk nekk ñoo nekk mun a musdalifa ba ma jàpp yoon ak moom pour ñëw guddi pour ziyaara ji foofu wallahi ma jàpp ko ba tëral ko ñëw ba kawar di ko woo mu ne yow sëñ dangaa yéex a woote jotuma la génn naa ci daara ji nga xam moom la nekk Kër Masar te suñu mbokk tabarakallahu ya fa nekk dëkk ak moom seen mag ci moom seen rafet mu dem di préparer liggéey boobu pour mën caa tuxu lii moo tee aksi wu ma guddee waaye tabarakallahu nekk nga boobu accident ndax góor gi ni mu waxee ni accident accident may dox bis fii ci muur sama frère bu baax bii tabarakallahu Mouhamadou Lamine ñu tase man ak moom أو يتصل من أكمل تبين بقى في جبك منو يما خامو خو خامو مي وقتان من أكمل بمني ما واقدمنا من قدمنا واجرنا فوريون محمد بشير سيسي لا فوران أكو رك مكوت مني ما أخ آه، كوكل سما مكوكل سما كوزيلا تبارك الله كندي دارك من ميجو كسماي مكا منو كوكس جاي الله مدلوتي لشيخ الخليفة وخنر رضي الله عنه bu ñuy way maam Cheikh El Hadj Malick radiyallahu anhu ci benn way daf ni ko wa faa'ilu maa shaa yaf'alu maa yashaa'u bi maf'uulihi maa sawaa nit mën naa bëgg dara di ko bëgg di ko jéem waaye nekkatee euh, musabbibul asbab yàlla bi nga xam mooy murattibul asbab moo koy euh, tonk ba mbir yi ñor am na weer wu koy jaarale looloo waral sama xamante ak sama wëlarante moom. bi mbir mi amee tamit ma jural ci engagement ñu ko ñaanal yàlla mu fekk ma ci réew mi fekk ma ak wóor fekk ma ak tal incha allahu mbirum daara ji boo ci wóor incha allahu maa ngi ñoo koy ànd min al bidaaya ila nihaaya te incha allahu taala loolu sama yéene la euh, ndax itam ñun ci daara la ñu jutoo ci la ñu ci la ñu yaroo wax nga ko léegi Abdoulaye Diabo moom itamit di ndax goro la ca kër ga waaye taxawaayu frère lañ koy jàppe ndax mooy nekk suñu rakk soxna Daba Samb bi nga xam ni waajur yi ak famille bi yëpp dañ ko amal ngërëm amal ko cant nettali naa ko sa kanam koro ci tudd bi tabarakallahu bis bii nag bis bu ma neex la jataay bii aussi ma toog jataay bu ma sante yàlla la ndax ida marratum bi riyadul jannati fartaxu yéen yàlla Muhammad صلى الله عليه وسلم بيغا خامني موي معلم الانسانيه موي لو بروفيسور دي ليمانيتي داف ني بوغين روبوتي تولو اجاني سغ لين ген فور واي في نا امول بن تول اجانا بو مانا غنا كاوي القران داخ يالا تاك لي نو جوخ وا ال نيغي القران اهل القران وخاصته تي يغنا ني كي نا تي القران الكريم بي تي موجو رك موي maa ngi bokk ci cellule de communication bi yor wàllu jokkale ak euh, Grand Prix Sénégal ku ne xam na ni bii passé nii tournée yi nga xam ni moom lañ defoon ci kër kilifa dina yëpp Cheikh Abdoulaye Diame la yebal maa dem ci xam général de Mouride Cheikh Mouhamadou Mountakha pour waxal moom ci concours bi man mii la yebal ak mbooloo ak mbooloo mu bari suñuy naataango ñu ànd dem Tiwaawan wax ko xam général de Tidiane ñoo dem Thiénaba ci Serigne Baye Assane Seck ñoo dem Ndiassane ci Cheikh Ab Bekkaay Bekkaay ñoo dem ñoo dem ñoo dem ci kilifa yu bari bari bari pour mën leen expliquer li nga xam ne mooy taxawaayu xaadimul quran alxaaj Abdoulaye Dia bu sëriñ ko nga xam ni képp ku jàng alquran ci réew mi amee nga ko jant amee nga ko ngërëm te di nga toog sa roq ni allahuma yàlla nu ñu rus ci moom ndax li muy defet yombul yor société yor ay liggéeyam waaye lu ca ruus rek mu jël ci pàcc bu bare bare bare bari mën naa ci ñi koy ndax maa ngi bokk liggéey ba koroog bi def émission quartier général ci préparé concours bi man mi la yebal maa dem ci télévision Futurs Médias pour mën ko leeral askan wi ak jullit yi te Sénégal nag am nañ chance ndax dañoo bëgg al Quran waaye nag taazimuhu wa tizaazu xiina taskuru xubbul Quran waa saxaaba lahu karam moom la suñu maam سيدي توبا رضوان الله عليه مام خادم المصطفى ممكن كنا خمنا دايو اكثر من جوخ القران واي وورنا من تام كوديم بو فا ديمي لو مل لول موفا نيك اكوما تي دك با واي بو تاسي دومو كوديم نين وقتان ديغا گنا سوب دك با سوب ماك ني فا تد سوب كي فا ييغا خامي نيم لا فا يارا تك يالنا سي توغاي ياك انغاجمان بي ماي واخ رك موي ان شاء الله واخو نكو كو تي بجداجي من من من كو كاتوري الله دار جي من يهون يهون يهون جدك بي لون يتوك سيو ويجو القرآن رجل بقول جل نكون ويجو بقول جل حافظ القرآن بمغل يكون مقدم بمغل نكفي كي كم من غير دي الحاج مرسام رضي الله عنه ب خير خير ودي نيجنا ما تريو مي أتي نور مومي الله جهور نكو تشير بني جوا جالس كارنتين إن شاء الله كم كي كده فرسي جمو تومبك إن شاء الله le samedi 17 décembre xam naa ni daara ji bu soobee yàlla dinaa waxtaan ak sëriñ ak mbokku julli di ma fekk ak suñu mbokku taalibe yi ngeen gën cee dolli ñaan waaye bu soobee yàlla daara ji dina bokk ci ñi nga xam ne ñoo fay ñëw pour mën fa jàng alquran karim loolu suñu participation lay doon te duñ ci yem bi muy wax rek di tegtal kër yi nee naa ko yaa ngi dëkk ak monsieur le maire Cheikh Issa Sall këram moo nekk nii euh, ku ko xam xam ma bâche nañ fi ci buntu bataay def journée prière lekk ci sama loxo bi da koy teg ñu seq li ñu seq bokk li bokk mu nekk nag ci wàllu politique waaye nag xam naa ne ku bëgg diine la mën naa seede ci moom nekk macha allah ku fonk daara alquran la ndax matul weer li may wax du secret d'état moo woo ba ma ñëw mu ma dama bëgg ñu liggéey ci benn concept comme ni mu defal école français bi yitte ji dafa leen journée bu mag boo xam ni euh, xale yi ci gën a ëpp ay not gën cee ràññee ci wàllu njàng nasaraan ñu bëggal leen jàppal leen mun ma loolu laa bëgg incha allah en tant que maire ñu def benn musabaqa musabaqa quran boo xam ni day nekk ala musala ci commune Mbour ak département bi ñu ànd war ci liggéey te boobaa ñun mënuñu ci dem wala ñu àggale ko wala ñu taxaw ci te duñu ànd ak ñu dul ahlul quran wa xaasatu te mooy yéen ñi toog sëriñ bi daal ñu ngi ñaan inauguration bii nga xam ni moo ñu fi dajale daara ji yàlla bokk ci daara yi nga xam ni incha allah dañ koy dégg ca kaw a kaw ndax nag noonu lay amee incha allah am na ci yaakaar bu baax te yooyu yàlla bàyyi la ci kanamu jamono yi nga yàgg ñaan tooloo ñaan yàlla yàlla nangu ko ndax dafa am benn nit bu ma doon jàngal xikma mu ni ma koliwul sa doom baax doo ko tere lu mu bàyyi soo koliwul siin bu ko seenoo lu dul ëllëg nit ko doy waar ci biir société soo koliwul miim nag bu ko miimal dara lu ñu ko jiiñ ñi moo ko def ci ñaaw sañalu ko raw buñ ko yóbboon tribunal sax di ko àtte jàppal ne boo ko niwul mbaa siin miimala boo ko niwul miim bul ko miimal dara luñ ko accusé bu euh, juge yi toogee ak procureur avocat yi bu ko doon lay luñ ko waxee sañal def lu ko raw te tey pour ñu delluwaat ci réew mu dal pour ñu delluwaat ci réew mu am jàmm pour ñu delluwaat ci dund sunna Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour ñu delluwaat amaat yaakaar ci yaraat suñuy doom ci yaru diine bu sell boo xam bu ëllëgee du ñu bokk ci ñuy yàq réew du ñu bokk ci ñuy saaga ci ñu bokk ci ñi nga xam ne bu ëllëgee seen programme nekkul lu dul taxawaal ak yàq faaw yu dellu nag ci cosaan bi te cosaan mooy alquranu karim ndax yàlla ko bind moo ko amal boppam maa ngi am mbégte bu baax mu guddal naa waaye dama doon naa leen ziyaare li ma wax sama waaye leen ci tool yi dama ne ko daal nañu baye bàyyeeg suñu diine nañu bàyyeeg suñu valeur yi xamni mom lañu moom alquran def ci ñun ndax man ko benn way nee na ji ndax dafa daanu 3e étage bi mu ne tëpp ci suuf wàcc mu mus daw ñu song ko diko akolat nan ko mas ba gañu wo nee na ji ndax xool ko jagg ni ko gañu na wala gañu mu daal sa yoon ci lu ma la rek baye ma ak yàlla dama ñëpp jéggal kàddu yi salaamaaleykum waaye ñu dañu baye alquran ak diine baye ñok daara yi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu لا إله إلا mais وبالكواكب ريم يلا زجل بيات يقينا قل من صديقا بثقة الله ربي الماجدين أولياء ولما قل المزامير يا مؤمن ولا ولا تقلب يا من ذنب وظلمة أيا مؤمن يا ألا ويدا وانت يا ساجدين yeye qui pense pour m'appeler qui balance pour m'appeler ñu waajalee waxi yàlla pour di ko fi xamle ñëpp wax nañ leen asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu إلا من يسري به الخليفة سيد محمد الفاجل بن مولانا شيخ عبد السلام رضي الله عنه ci làmmiñam la ñuy waxee ñëw wuutu fi mboolem njabooti Mawlana Cheikh Abdou Salam yëpp يوم يبقى يلين بوك يبقى فيلول يلا تفلين سين بك بك يب سبك سيدنا محمد تاني وقت الحمد لله رب العالمين ويوم وقت رجوف ولا نسي عبد السلام ومن كنت رجوف بم ونبطم ndax wàllu yàlla ak Seydina Muhammad la yonent waxoon ba muy dem moom la wax ba muy dem bàyyi na leen yàlla ak téeréem bi ak sunna Seydina Muhammad addu bin nawaajis loolu la wax bi muy dem loolu la yonent bi wax bi muy dem loolu nag ci la yar la mu am kon bu ñu ci yàlla yi njaboot ñoom ñëpp ku ci nekk bëgg nekk jant fa nga nekk ci Qur'an kooku dañuy wax jërëjëf sax du si am ndax bu ñu xamaloon boppam ñu wuti daraja bu ñu waroon boppam ñu la ci jahdiya waaye daf ñu woon ki nga xam ne fa la jëriñ nekk te mooy yàlla loolu moo waral gi yëpp ku ci nekk fa la nekk li nga fay yëkkatu kon nag Mouhamadul Amin bu kenam dajee gi danañ ko gërëm danañ ko sant waaye dañuy njukkal maamam <coughs> waaye nag góorgóorlu bu baax lool jom lool xam ki nga doon yaay kan soo jamono bu mu la poussé mukk ci nitu ko warul nitu sama doonu nitu waay ni bëggee yàlla ak ni mu toppee doona royukaay waaye nga yëg ne ku mas def lu baax yéene ba nga am pour taxawal am na ñu taxaw am yéene pour loolu ba mu am fukk keroog ba yàlla yónnee Muhammad yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di woote la muy woote ba mbir yëpp ki ma commencé siiw ñi nga xam ne ñoo ko waroon a dimbale ñoo njëkk taxaw pour bëri xam-xam lool bëri warsak lool taxaw ne gii di woote li muy woote du fi wéy kon nag waxtaan jot na pour fexe ne ko ñoom ñëpp ñu ngi ji waa Quraysh yi man nga ci lim ay quelques personnes rek Utbatu Rabia Abu Sufyaan ñoom ñëpp ñu dajee nekk ay borom xam-xam wax ne gone jii mu ngi jóg di woote lu mu xamul suñu diine yi ci nekkee woon mu gën di gàcceel moom yàlla ko yónni ci ñu topp ko nañ ko fereen ñu nañ ko woo ba mu ñëw moom yonent yàlla Muhammad mu ñëw toog yow sa wax ji muy commencé di bëri bu fekkee alal képp tax nga ñëw waraan yàlla la yónni wala nañu wéetal yàlla bàyyi lu woote wi ñu jël alal jox la ba bu dee danga rek nga bëgg ak njiit ñun ñëpp nangu nañu nga énëf ñëw ñu jox la tiraanga bu toll noonu nga bàyyi nay Seydina Muhammad bu mooyo leen ne leen man yàlla ma yónni nañu ko wéetal bu ñu jaamu lu dul yàlla loolu la ma yàlla yónni bu ngeen ma gëmee topp ma nekk seen cër fii ci àdduna nekk seen cër fële ci àllaaxira bu ma bu mooyoo yéen a xam waaye daal yàlla ma yónni ba mu leen waxee loolu terewul ñu am kattan ak xelaat ba tey seen bëgg-bëgg yëpp mooy nooru laahi bii Seydina Muhammad di woote na fay yuriduuna an yutfiu bi afwaahihim waaye yàlla bañ lu nekk ñu def ko ko sonn ci moom lool ci ay pexe sonn ci moom lool ci ay wax ju ñaaw ba abi taalib bi nga xam ne moo ko doon gën a dimbale ak ki nañ ko ñetti yoon bàyyi ñu Muhammad ci dem kii fekk sama ko dimbali yeneen ci bi di woote rek affaire ba abi taalib gaañu xadijatu bi ko doon dimbale ci même at bi moo tax wala maaru ëllu siira yi di wax ne amul husni mooy at boobu xam ne si la Abi Taalib gaañu ci la sayyidatuna ñu ne nag ñaar ñii ñoo fi doon dimbale ñii ñoo ko doon financé kii di ko aar faatu nañ leen dem fagaagal ko nag lépp jëm affaire yi fañ waaye wa yaba Allahu idaa an yutimma yàlla bañ ne sama leer gi faw mu dem loolu nag comme bi sallallahu alayhi wa sallam moo def jéego yooyu ay pexe yooyu di am diina di dem nu diina di màggee noonu diina di gën a màgg léegi nag lislaam dafa dafa jànkuwanteeg ay coono yu métti métti léegi rawatina jamono ji ndax seen noon yi tey lañ ëpp alal yàq-yàq ci kàddu tey la gën a yomb loolu yëpp ñu ko utiliser tey pour dina ji fay loolu nekk-nekk xaleel jëm ci diina ñu ngi ci sa tànk yi nga yëpp ak la bañ a yëpp waaye comme ñu ngi gis yaa ngi jëm ci diina rek jàppal ne ñoom ñu ngi ci sa tànk pour luñ la fara fara léegi nag ci ñaar lañ gën a jiital mooy jigéen ak alal la ñuy jiital pour bépp ndaw bu jóg pour taxawal diina nañ dafa bakkan suñu ñàkk fayda ak suñu ñàkk yitte dem na ba ci ñun ñi jàng Qur'an ñun la tuumaal suñu moroom ñun ñëpp ñu bokk na waaye ñoom ñi nga xam ne jàng nañu leneen jël seen adduna yëpp def ko ca koo ci tuumaal rek am ku taxaw mi mën ko waaye ñun ñun ñun ñi nga xam ne day woowee suñu bopp diina ñun dañ ñuy tuumaal ñun ñi war a wéddi ñooy saxal te lépp ay fen kese la pour yàq diina rek te ñoom ñu ngi jóg da gis seen xale bu ndaw ñu amee ko yàlla moo fi nekk yónni Seydina Muhammad ne ko ci man nga jëm ci yow Iblis nekk fële ne jëm ci yàlla ma fa ma ma ma fagaagal di def ay pexeem ki nga xam ne adduna képp lay jàng yitte bi bàyyam di def ci moom ay suba sang ba mu set solal yére yu rafet dugal ci otoom jënd ay kaye fay fa muy jàngee yóbbu ka koy jàngal sañul ko dóor sañul ko wax na ko yàlla nee na sañul ko wax na yonent bi nee lu mu bëgg mu defal mu ne kooku nañ lañ war a fokk léegi ñi nga xam ne yàlla lañu si lañ si lañ jëm ñoom ñoom ñooy sant ñoom dañuy tuumaal ne ñooy yalwaankat yi boo ci génnee ñu ne ñooy terroriste yi ñun lu bon ñu sànni ñu kon fu yàlla nekk ñu sànni fa mboolem mbon fa mbon nekk ñu def fa mbaax waaye fekk yàlla programme noonu adduna moo bind addunaam ne ko adduna yaa moom demal ku ma bëgg noppal ko ku bëgg adduna sonnal ko moo tax ngay gis ko kay ñu lay sang ngay jàng ba màgget te doo fi def dara waaye nañu siixlu xam ne lu ñu laal ñu ne taalibe yi taalibe yi taalibe ñooñu lu fi nekk ñoo ko fi def kon dafay jot ñun ñu am fulla ci yéen lu ñu amee xam ne li ñu amee mu gën lépp lu nit di am te boo amee njaboot fexeel ba jox li gën Seydina Muhammad sallallahu alayhi amul benn wayjur bu may doomam lu gën mu yar ko yar bu rafet est-ce que nit mën na yaru te yaruwul ci Qur'an manul lekk nit mënta amee jikko ju te fekk jikkoom nekkul ne muy jikko Alqur'an noo mel ci mbaax ci sell ci dëgg dafay fekk Alqur'an la yar kon dafay jot ñu am fulla mu la Sidi rajo woon daw radiyallahu anhu wax ñaari baytu ne wa addibil atfaada bil qur'an qiraatan tanal sana ridwan bu fekkee ne am nga xale yàlla warsagal la ko te duhul ku nekk la ko yàlla di may bari na ko ko ñaan yàlla la bëri na ko ko bëgg yàlla may may ma neex mu ne bu yàlla mayee xale yar ko ci Qur'an jàngal ko ko bu ko defee ridwaanullaahi ne ko am bu jàngee alquran ba maa jàng aaya yee man lépp nga yar ko nag bil furqaan yi kon Qur'an lan ciy déggee mooy di teqale Qur'an ak furqaan qur'aan qiraatan danga koy jàng xale baa ngi nii nga di ko jàngal furqaan taqannuqan moom ngay jikkoo loolu mooy jikko Seydina Muhammad moo tax suñu yaay Aïsa bi ko laajee lan mooy jikko yonent bi mu ne xuluquhu alqur'aan te boobu la yonent bi digle ne taqallaqu bi axlaaqillaahi jikkoo leen jikko yàlla te bu mooy jikko alqur'aan si dara ñu ma mu ne boo amee xale yar ko ci ñaar yi jàngal ko Qur'an mu man ko jàng waaye yar ko ci Furqaan mu jukkowoo ko xam li ko yàlla wax digal ko ko ak lim ko tere mu ne ko jàngalee Furqaan ba mu jukkowoo ko yahlu hudal aqran bi ku mu tolloog masaraw te loolu leer na ku jàng Qur'an di ko jëfoo parce que jàngal leneen suñu dendee ñu xam ne leen alquran la yàlla yebal yonent bi jox ko muy génnee nit ci ñett sulumaati sirki wa dalali wal jahli dafay fekk koo xam ne léppam bokkaale yàlla la mu xamal la yàlla nga xam li ci war a gëm lan la أبن سيدنا محمد لنا ورقم جي مملنا أقبال يونيتي بدن جسنا جنة جرير جنة جعلو ويقول نور العلم والهدى والاستقرار ويجب لون سقل بسد لأم توحيد ببير دوتو بوكا ليان لأدرا ريال جنة ريرون بدن جسد jëm ci xam lu dul alquran moo koy def waaye lu dul alquran boo ko toppee muy dooni ci lu dul alquran boo ko toppee mu lay yóbbu ci nga gën a mën a bokkaale ak yàlla dara alquran dafay seetal ci loolu nit ba mu set si wécc alhidayatu nit mënu ko amee ci lu dul quran quran jooju nag moom la sa maam jàppoon ba kawee ci njëm ndax nee na moom rek lay déglu mu dima tere dima digal kon nag boo nekkee sëtum noonu nga war mel te noonu ngeen mel ndax fu ngeen nekk royukaay ya ngeen fa moo tax mu doon wax am nga ndam am naa ndam léegi tudd na fi kër yu bari waaye ay jigéen kese ni sëtam yu góor yi mel boo boo téyewoon kaamil teg téye kaamil teg na le ñu nekk ay jigéen yi nekk ay góor bu ñii di pare ñii di pare ni mu amee ay xaafis noonu amee ay xaafis yu fees dell ci Quran waxtu bu ñu xëyee suba balay def lenn ak jamono liggéey nu mënta toll ñëpp wàcce alquran soo ko dem di toll te ay minute yu néew quran jooju ci nga juddu ci nga juddu ba toll noonu kon loo def lu dul quran loolu mooy yéeme waaye maa ngi jàngale di xam ne quran yàlla ak yonent bi loolu yéemewul te nii moo baax nii moo gën tiitaroo kan mooy Cheikh Abdou Salam man may sëti El Hadj Abdou Salam Guèye man may doomi Mawlana Cheikh El Hadj Abdou Salam Guèye ñu xool na gisuñ ci yow Cheikh Abdou Salam Guèye dundoonu wala taqul inna abai saraftu bihi laysa fata man yaqulu kaana abi sama baay def sama baay def sama baay def arab bi ne loolu boo ko waxee ñàkk nga jom yow loo def yow moo tax Jaabir dafa am ku ñëw moom di ko wax ne ko sama maam nii la toll sama maam nii la toll sama maam nii la toll mu ne ko la in faxarta bi abai sawi sarafin mu ne ko sadaqta li nga wax dëgg la waaye walaakin bi'sa maa wadatu sa bàyyi moom li la war def nañ ko waaye ñoo am doom ju bon yow loo def loolu la waay sama bàyyi lii la def lii la def lii ko waaw yow li ko war maam doon junjoo di wax ne damay màgg rek li booy màgg nii ndax alquran da ko màggal alquran da ko yëkkati ba mu tiim lépp gisul boppam benn yoon di nekk Abdou rek wax ne damay màgg am na ku mu waxat mu jàkkaarloog moom ci yëgoon ne ko di xam ne dangay takk gañoo may takk gañoo si rajo gi day takk te man sama bos di lakk dëkk ba ku ko waxee woon rek gerte na. yow jàkkaarloog moom ne ko dangay takk gañoo may takk gañoo

te masu yu bàkku te kenn sañut ko ci yéen sax doomi soxna yëpp lu ñuy def bu leen neexee ngeen def waaye ñemewu leen ko laaj nit dara ñemewu leen ko foofa la nag mbir waaye ëppalante alal dem naa réew mu nekk la yaqurrannaka taqallubuka fil biladi demal fu la neex wóoral ku la neex naawal ci ab yooyu ku la neex rajo bu lu bokk ci moom boo jubul bokkoo koo mën a doon boo jubul yëmuñu jub kese la ñuy nettali ci yow mu yëm leen kon nag xàgg sa nii rek la yàlla bëri lool nag ku fi jàng xam ku fi ñëw yaru ay xaafis ay alim ay alif yàlla nañ ci feeñ te loolu rek fi mën a feeñ sa maam ku taxaw moom benn mérite nekk aalim nekk aalif booy taxaw moom nekk aalif bi tey amul si dundam nii rek bu mu jëteeri dundam muy wax ak kilifa bu am solo ci réew mi mu ne sëriñ ba nekk ca àll ba di ma kenn xamu ko mu ne ko ñun de xamuñ ma waaye waa diwaan xam nañ ma moom waaw ca kaw benn mu doon réglé mu woo ko moom ci nguur gi moo tax dañuy tudd turam àttekat la mu woo ko ne ko sama gune la bëgg mu oyof mu ne sëriñ bi dëkk ca àll ba kenn xamu mu di ma ñaan mu ne ñoom de xamuñ ma waaye waa diwaan xam ne moo la wóosu rasulullahi mooy séddale kaas yi kon boo bëgg a ci buntu yàlla foo nga jàkkaarloo boo doon Cheikhul Islam boo bañee rek lu la jox xam si yàlla dafa amoon mbay boobu bu la neexee tiyeel bu la neexee baal ah Tijaana ko ko njiiti diwaan Seex Tijaana ko fal daf ko njiiti jagaa yeer mooy Mustafa وصفة هو كم مجتبى سيحدوك كم يلا جودي سيحدوك كم يلا جودي رجال يوم رساكم يدجكي ما هو góor mi le bër far ci moom daway daan mooy borom jamono Abdu Xaws sam daan moom lu dul yàlla sàkkul ci waaw góor moom lu dul yàlla sàkkul ci waaw góor faalewul àdduna may doo xëccoo ngóor fañ xamul li nga doon mooy ijaab yi ñii xuus fañ xamul li mu doon mooy ijaab yi ñii xuus baatinam dafa leer kum dabar bee afuus dey sëriñ lu mu foor foor ba gis la may raam fa umul kook ma rekook man fa bon boot raam moo xalli yoon wi ba yoon wi neex a jaar moo leeral yoon wi moo di nuuru anwaar ñoo ka am xel mu boole kook sa goog taar góor gi leen neex wi gaañi kon ne leen kaar ndaw mu ngoog alquran dafay ñu si dajeel Ibnu Mas'ud radiyallahu anhu mu ne boo bëgg a ki bëgg yàlla bëgg yeneen ci bi xoolal ñi mel ci quran man ahabba alquran ahabba allaha wa rasul ku bëgg alquran rek bëgg nga yàlla bëgg nga Seydina Muhammad إذا يوم نولد على مات محبة النبي محبة القرآن هذه الرتبة kon nag yàlla nañu ko yàlla bëgg ñu góorgóorlu bu baax Mouhamadou Lamine boo nekkee nag ci bu màgg bu fàtte sa bopp ak gër yi noonu toll xamal yaay kat yàlla boobu commencé maye alwilaayatu nit di jege yàlla gannaaw bi yi paase kenn gën te jege yàlla si ahmadu salaam ba nit di bëgg yàlla ak tey gannaaw bi yi paase benn waliyu bu gën a bëgg si ahmadu salaam yàlla amul kon da ngay xam li doon xam kan moo la gën a foor ci àdduna nga am si ahmadu yàlla dogal na nag yaa fi nekkal sama muy Cheikh Abdou Salam nemmeekuwaat ci leen seet si waat ci leen nga déglu ko comme mbooloo ma koo ko fi yaa tànn lu la neex bàyyi li yàlla tànn waaye yàlla moo la tànnal ki nga bokkat sama mu yaa seet ki la neex muy sa sëriñ waaye yàlla seet ki ko neex nga bokk ak mu boole la mu ne li yàlla def moo gën li nga def fonkal sa sëriñ lool waaye màggalal li yàlla def arab bi nag way na ni aqaaka aqaaka aqaaka inna man la aqaalahu mu ne yaa ngi dem ci xare te amoo ngàndaay jàppal sa mbokk jàppal sa mbokk mu ne boo fi bayee sa mbokk wuti mbokki jàmbur mu ne yaa ngi dem ci xare yi te amoo ngànday ma ne boo jibsee yàlla rek la soob boo amee jaasi ak paak nga jëm ci yow yu ameewoo dara bu la rek coobare yàlla nga yëgal ci yow nga def yàlla taxawu leen te taxawuñu ngeen faree ñu fii ñu faree leen fële yàlla mottali seen yéene sàmmal ñu leen ngeen yàgg lool ba li seen moom bëgg ngeen mel ko li ngeen bëggal seen maam ngeen def kon nag si Abdou Salaam sarakan bi yéen a fi nekk yàlla dogal na ku fi njabootu si yaa fi mag tey lu ñuy wóoti bu dee mu fi ndax deret deret la ñuy wóoti te mu ngi fi njub gi foo nekk defal ko waaye ku bëgg gis deretam yéen ndaw ngeen ku fi nekk te yaakaar si Abdou Salaam bëgg yàlla ak yonent bi ñii doy nañu loolu rek la ñu bëggoon a wax ci déglu al xalifa ak mboolem njaboot si Abdou Salaam yi fi wutu yëpp seen kàddu moo nekk noonu yal na yàlla may leen mottali yëpp may leen jàmm may ñu ko ñu del waat fii ci ay gone di mokkal alquran del si waat fii أيقوني دم كلام قرآن با غتلي سأي جبر مرتبي يا نبي الله ده تبارك يرتي على محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيد بن أبو ميسان تنيو سبتو سيد مدو سيد مدو سيزي تتحوي رفتنا وعيدي لنا فوقكو mu ne kër Alaaji Sëriñ kii fu mu bokk kër Cheikh Abdou bu ngeen àndul wor bu ngeen àndul rek wor ngeen wala na Cheikh Abdou Salaam moom daje suñu rajo woon na woon ñeneen ñett ñett la ko tudd Alaaji Sëriñ Touré Modou Diouf Moussa Ndaw mu ne Modou Diouf de mag moom ba biir saan yi suñu rajo woon na moom Saladin Islam nee na bu ma ko seeti woon Pambara mooy bayal boppam mu ne suuf si sax mu ngi sàmbal te nit ñi ñu ngi koy tas mu ne bu ñu yëgoon suuf si la ñuy wax ci Modou mu ne ñooñu ñoo koy foog waaye xamuñ mu dellu rek ci sant yàlla moo waxoon ne bu ñu xamoon dëkk dëkk wële yu ndaw bi jaamu waaye am na ñoo xam ne dañu nëbbu mu ne kenn ki du kañu àddina Alaaji Bisra moo ko firi ne mooy Moussa Ndaw ndax amul doom amul dara bàyyiwul fi dara mu ne Alaaji Sëriñ nag rëyam moom la ko tudd laaj naa ko doon Alaaji Sëriñ defal mënu ko dara parce que dinaa yoon ak ay ñoom rek jaade ko ko fekk mu ngi simmi yëreem mu ak mu ne ma mu ngoog mu ngoog mu ngoog ma day tofoo wa yàlla bum la moom للقوهم مقام مدوتهم ويلهم لهم ويقول waaw maqaama mi dal na ko mu ànd ak dal nag ko ba mu mat te yëngatuwul feeñalul boppam dara dara dara waaw kooku bu ngeen àndee da ngeen war a ànd kon nag gërëm na ndax li nga ko mën a yombul sëñ bi nee yàlla nga yokk yal na yàlla taxawu la te sàmm la jërëjëf ñi fi ñëw liggéeyal si ko yëpp sëriñ bi nee na ngeen waaye dañ ko war a liggéeyal nag ñoom la liggéeyalee dañ la war a liggéeyal am na koo xam ne boo ko liggéeyalee ci yàggoo la ñexel la si def ma ci jaay def na njabootam boo leen di liggéeyal géej gi mu lay sàmbal lu nekk ci géej gi mu ngi lay sàmbal xaadimuhum tusabbihu l-bihaar wa ma fiha kazalika al asjaru te Seydi Ahmad Tijaani macha allah laa sakk kon seen liggéey bi yëpp yiw la ci waaye nag sëriñ bi incha allah salaam nee na nag def li la war si ngay amee moo tax nee leen jërëjëf waaw ñii sama mbokk lañ yàlla leen boole Modou Lo sama doom bi yaay lañ waaye ñoom ñëpp Modou Lo bi la ñu miin waxtu wu ma leen gis gisiru laa leen di wax fonk leen ko xormal leen ko màggal ko rek ngeen jëriñu waaye bu ngeen waxee ne am nañ mbokk foofa xeeb ko rek ngeen jëriñu dara ndaxte leen dara ci Cheikh Abdou Salaam ñii ñooy doomi Cheikh si seen sax yi ñuy def sax ah ne yi ñooy ci Cheikh Abdou Salaam xaqal ndax ñun ñaanu yàlla mukk xanaa ñoom ñu jiitu fi dem di aajib islam bi li ñaage mooy dama aajib islam yàgg fi lool waaye ba fi ñii ñu fi génne yàlla ngeen ci loolu lañ bëgg yàlla yàlla defal leen ko te defal ci barke yonent yàlla Muhammad asalaamaaleykum wa rahmatullahi ak beer mu ne beer bi nga xam ne moo jàkkaarloo la bi bi fi ñëwee ba léegi taxawaayam sonn na loolu lépp lu ci toggee ci bagage yëpp mënu ma ko awal gërëm na ko sant na ko waaye yan yàlla fay ko yan yàlla fay ko yiw yàlla xam ki mu dëkk ndax mu jëriñ ci ci asalaamaaleykum ñu bàyyi càmm waaw <coughs> nee na toog nii rakk na ci bay bay mu jub

gën a kaw la mu jërëjëf Baye yàlla yàlla sàmm te sàmm barke yéen ci mu ne Abdoulaye Cissé moom la góor gi doon wax ne moo man ci toolam আল্লাহ ay doom. seet fu la neex nga jaar leen. seet fu la neex nga jaar leen. waaye jaarale ngeen fi ngeen fi ñu war a jaar. waaye jaar ngeen fi ngeen war a jaar. ñu jaar fa ñoom itam. ñoom it ngeen nangu fay jaar. kon gërëm la sant leen. Cheikh Abdou Salaam li mu dégg ci baay. Cheikh Abdou Salaam mu ne ñu gëm li ñu wax. Mouhamadou Lamine dégg li ñu wax. Mouhamadou Lamine dégg li ñu leen El Hadj Modou. Saa yi rakkam boobu. Saa yi rakkam boobu. seen kii mooy seen maam. ndax buñ ne bokk na sa El Hadj Babou Diop. képp ku ñu bokk na baba bu ñëw ngeen nekk ak moom ci dëkk bi ngeen nekk ak moom ci dëkk bi xamu leen ko xamu leen ko leen ko warmaalu leen ko su ngeen dëkkoon ak Mawlana si Abdou Salaam du ngeen ko warmaal kon seen maama wax na ko bi mu agsee sa jàkk ja fa la ne ma ko lamin ay yoon ba jox loxo ne ko mana sant mu ne ko Guèye mana ne ko Guèye fan mu mana ko Guèye bu Diop mu mana ko yow de sa maam mana moo ko tax a teew mana ngir jëmmi moo daan Cheikh mana Salaam yi kon seen maam mana jëf أعوذ بالله من الشيطان mana لا حول ولا قوة إلا mana العلي العظيم رب أعوذ بك mana همسات الشياطين ورب أعوذ بالأمن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 مختار يا زنادي كرم وصفك يا كريم